salaamaaleykum <clears throat> sama gaay yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di am mbégte euh, saa suñuy jàkkaarloog yéen ngir ñu waxtaanee li nga xamante ni euh, mooy li xew ci penc mi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp euh, di wax ni. umpale woo leen nii ki nga xamante ni mooy ministre bi nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu communication àdduna def émission muy monsieur Aliou Sall umpale woo leen ni yëkkati na ay kàddu yoo xam ne ay kàddu yu am solo la yoo xamante ni eh, damay wax ni soxla nañ ci jamono ji kàddu yu mel noonu ñu dégg ko parce que dafa am loo xam ni euh, dafa amoon ci jamono te loolu dafa nekk loo xam ni dama gis ni luy affaiblir la lim ko comme ni ko waxee luy affaiblir ministère yi la muy nit ñi nga xam ni ñi ngi jóg di wax ne ñun président soxlawuñu kenn ku dul président lañ soxla pour mu régler problème benn nit kese mënul régler problème ci réew dañu fal benn nit nit ki fal ñu muy liggéeya ku ci nekk mu am lu mu la dénk kon day jaadu su jafe-jafe amee nit ñi dem ci ki nga xam ni moom la président dénk parce que loolu mooy firndeel ni kat ka ñu dénk lañ koy fay mérité na ko mais bu fekkente ni dañuy tapp nit ba noppi ne diw la ñu dénk lii ñu ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllu communication bi diw la te ña nga xam ne ñooy acteurs yi bu ñu amee jafe-jafe soxlawuñu ko kon dafa mel ni ministère boobu amul njariñ kon li ëpp solo mooy li nga xamante ni moom la ministre bi wax faw acteurs yi doxalee noonu parce que loolu mooy réew moo xam ni jëm na ci yoonu dox noonu lay doxee parce que am réew euh, mënul doxee neneen lu dul sart yi nga xam ni moom lañu teg ñañu teg lañ leen fa tegee ñu nekk di liggéey waaye bu fekkee ne seen liggéey da ngeen ko wëlbatiku jëlaat ko bëgg ko transmettre ki nga xam ne moo ko joxe muy le président de la république laa bu boobaa jafeñ-jafeñ tey daal de am kon li ministre bi wax je suis parfaitement d'accord avec lui ci kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati mu def nag wane wane ñaaw teef yi nga xamante ni am na parce que mën nañ ko tuddee ñaawteef parce que bu fekkente ni bi dañu wax ne aide à la presse ñu koy séddale nga gis ni ca séddale ba ña ca xaritoog nguur gi seeni doxalin seen seeni mbir dafa feeñ ca séddale ba gis ngeen ni ki nga xam ni mooy Walfadjri la mu ca am ak ñi nga xamante ni bi ay seen euh, yi ñu yor ay site internet rek lañ yor lañu ci am Walfadjri am na loolu yëpp nga xamante ni moom la ñooñu am ba noppi am lu ñooñu amut et pourtant ba ñuy séddale ñooñu ñooy ñu ko ëppale ca yëf ya dama dégg nag a Ndour Faye mu wax ni chiffre yi nga xamante ni bi moom la ministre bi avancé nekkul loo xamante ni bii lu am la muy kàddu yi nga xam ne moom la may Maimouna Ndour fay euh, yëkkati d'accord wax na moom mais li mu wax boo ko xoolee ñu ko defal plus de quarante millions mais li mu wax yëpp plus de euh, trente cinq millions def na ko mais ministre bi def ne chiffre yi mu yor bu fekkente mën ngeen ko contester mën ngeen ko contester mais chiffres yi nga xamante ni moom la yore chiffres yi lii lay wax maanaam ñu ko jox loolu lay wane donc nag comme que contesté nga chiffres yi ñëw nga yow wane ni jox nañ la plus de trente cinq millions ba tey fa Walfadjri bi nga xamante ni bii am na amut lu dul vingt millions ci li nga xam ni mooy chiffre yi ngay contesté noonu kon ba tey yow bi nga ñëwee defaat sa bilan yaa ngi ci trente cinq millions et pourtant moom yëggul foofu te li mu yore yorewu ko kon day wane rek ni façon mu séddale ba jaarut yoon loolu mooy li nga xam ni je pense que tout le monde ñëpp gis nañ ni façon mu séddale ba jaarut yoon yu mel noonu nag pratique yooyu dafa yàgg am ci sunu réew mi doxalin yooyu doxalin yooyu nag jaaduwut parce que am réew du doxee noonu boo gisee jafe-jafe yi nga xam ne moom la réew mi am yëpp mooy yenn façon doxalin yi nga xam ni mi ngi koy doxee loolu nag ku yëgut ni loolu jóge na fii faaw nga am jafe-jafe tax man bu may déggee jafe bi nga xam ne moom la presse bi di wax damay wax ne jafe-jafe presse bi day yokk c'est parce que li tax muy yokk bunt bi leen di ubbil euh, muy bunt bi nga xamante ni ci lañ war a jaar ngir Euh, la leen teraanga mën leen na saawaan baawaan bañ koo xamut mais ci li leen état di woo mooy li gën ci presse bi presse nag laa ko xamul mooy li gën ci nit walla diw wala diw mais mooy li gën ci presse bi état ci lim leen di woo woowu leen ci lenn lu dul fexe milieu bi ñu raxas ko fexe lépp loo xam ni jaaduwut mu daal di am fexe ñu xool nu ñuy def pour. séddale publicité yi fexe da def tel sorte que ñi nga xamante ne bi ñooy liggéey di ay journaliste di ay kii am li nga xamante ne bi moom lañu war a am ci seen liggéey ba ëllëg bu ñu retraité mën a jot la nga xam ne moom lañ war a jot yooyu yëpp état di def luy dooleel ñooñ presse la et pourtant euh, jamono ji ñu toll nii état dafa mel ni moom mooy monstre bi moom moo jóg pour nasaxal presse et pourtant yëguñu ni ñi nga xam ne ñoo taxawal presse yi ñooñu ñooy nasaxal presse parce que ku ne xam na ni aide à la presse demut ci ñi nga xamante ni bi ñooy journaliste yi ci poosu boroom kër ga lay dem mu jël ca def ca la ko neex am na ñoo xam ne moom la ñuy xaar ngir takk jabar am na ñoo xam ne moom la ñuy xaar ngir jënd montre am na ñoo xam ne moom lañuy xaar ngir jënd oto am na ñoo xam ne dañuy def ay prêt sax ne ba état la presse bi ñëw lebal ma lii léegi tey gars yi dugal dara la ñuy dugal ñu dem def ko foofu mais defuñu ko fi nga xamante ni fii mooy presse bi maanaam état da doon jël xaalis rek di tuur di ko jox ay nit ñuy lekk loolu rek mooy li nga xam ne mooy li amoon état nag bu fekkente ni bi am na ñu ne lu tax état di publier di weer di yoole. loolu ay ree la ma def yow yaa ngi jeebaane ne da ngay grève journée sans presse dañ may noot état di leeral nga ne mi ngi yoole naan état na am sutura yooyu ay caaxaan la parce que tamit état munul def lu dul nii nga xamante ni bii euh, loolu lay def leeral parce que da ngeen a jóg ngir lëndëmal pour yàq deru état. état nag na leen man du ma nangu ngeen di yàq sama der vaut mieux ma wax ñi nga xamante ni bii ñooy sénégalais yi li nga xamante ni mooy euh, jafe-jafe yi jafe-jafe yi nag ñëpp gis nañ ko jafe-jafe yi du man dama ne problème mu presse patron de presse yi ñooy problème mu presse parce que patron de presse yi jóguñu ngir investir ci presse pour. métier presse daf leen a neex mais dañu jóg ngir wut xaalis seen objectif yëpp l'argent la xaalis la xam nga ku mel ni Sidy Lamine yàlla na yàlla doole ay reeram bi mu jógee di investir ci presse moom dafa jàpp ni dañu am loo xamante ni bi dañu ko def maanaam lu ñu warta def ñu def ko maanaam ki war a xam xamle xamlewut liy dëkk moom mu jóg pour xeex daan ne damay fexe ba dëgg di triomphant di dëgg di triompher loolu mooy nekkoon gis-gisam bi muy jóg pour sam taxawal presse parce que daf ko dañ ko laal ci loo xam ni du dëkk mu ne en ah, ndeket presse mën na lii mais lii c'est dangereux man nag danaa taxawal loo xam ni danaa fexe ba liggéeyu presse dëgg dëkk njariñ li doon njariñ li moo tax mu ne bu ci kenn jéem a leble wala nga di ci fay bor muy wax joo xam ni wax ju am solo la bu leen ci leble bu leen ci fay bor defe naa ne waxam jooju wër na àdduna ñi nga xamante ni bi nag ñooy les patrons de presse yenn yi dañu jóg ngir wut xaalis dañ cee pare di leble ak a fay bor nekkal ma fii ma nekkal la fii loolu mooy jafe-jafe ji nga xam ni moom la presse di dund booy génnee presse di rek pour régler problème mu presse doo ko régler le ministre pour mu régler problème presse dëkk dëkk il faut mu affronter ñi nga xamante ni tey ñooy les patrons de presse parce que ñoom ñooy jafe-jafe presse parce que li leen warloo ak seeni employés yépp defuñu ci dara amut lenn luñ ci def li leen warloo ak seeni employé amut leen luñ ci def la dama leen di jox benn exemple Bougane Gueye Dany jëri moo doon taxawal syndicat moom Bougane jëri loolu bokk na ci li nga xamante ni bi sax moo ko fa jëlee mu dawal ay at yàlla dogal moom mu am presse et pourtant ay nit ta jóg nañ pour taxawal fa syndicat ay sanction dal ci seen kaw xoolal ma contradiction boobu yow bi nga nekkee employé nga taxaw ne da ngay créer syndicat ba am ci ay jafe-jafe mu jaral la ko loolu boo demee ba nga xam ne yow am nga li nga xamante ni bii mooy kii defe naa ni foofu nga war a mën a gën a yow defee li nga xam ni mooy jëf jooju mais ña doon jéem a taxawal am na fu mu jaar ak ñoom. kon problème mu presse mbiru patron de presse yi la maa ngi xamal employé ne ñu ngi tëb nag di dexalee nu leen neex c'est parce que ci biir employé yi ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne ñoom ak patron bi ñoo bokk mbuus ñooñu duñu wax mukk lu woroog li patron bi di wax xale yi nga xam ni ñooy misère lii ministre bi wax ñoom ñëpp dañ cee ànd parce que xam nañ ni lii mooy dëkk mais ñebe wuñ koo yëkkati ci kaw parce que ñu ko yëkkatee yat wi daal donc il faut que ñu delloo si delloosiwaat xel yi xam ni bu fekkee ne dañu taxaw pour ne dañuy defal am réew il faut ñu soppi doxali ñi ñu daan doxalee mbokk yi ak xarit yi jërë